fépp ku amati jafe-jafe location gisal sama directeur di nga ko gis léegi Malick Ndiaye képp koo xam ni dangaa soxla assurance sa jëmm ak sa alal gisal sama directeur Malick Ndiaye waaye it dafa am yu am solo bu leen ko fàtte bayaal yi yaatu na dangeen ngeen amul ku leen terrassé tabaxal leen tabax bu wóor bâtiment boo xam ni mën nañ ko fee bàyyi ay ati ati at du fof du tippiku du daanu du yëngatu liggéey boo ko mënee boo ko mokkalee tari ko dalay yomb man caamaas du ma dugg ci ku amul fulla du ma ànd ak ku amul xam-xam waaye bëgguma nekk ak ku dul joxe nit bu tabee tab da koy yomb dal jam ci keur Bamba Imo keur Bamba Imo moy sen agence immobilière bi nga xamni dafa spécialisé wu lol ci kuy jënd keur kep ku bëgg jënd keur ci Touba ak ci réew mi yépp ñolay location keur ñolay lay waye it nga am sa keur keur gu rafet defar ko ba mu yañ bëgg ñu gérer lako ba mu baax di verser sa xaliss ñun ñoy keur Bamba Imo fi ci Touba keur Bamba Imo fi ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala bok terrain plan bâtiment construction de maisons, les plus jëm ci immobilier du la Bamba Immo am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage dëgg de dañu lay luweel de garder de dara du fa sécurité ñun dañ ciy dox entreprise bu te am nañu service sous transfert d'argent assurance de véhicules, toute branche sous siège mi ngi nekk fii ci dakaro marché Dalifort 77 339 88 55 wala 77 233 36 17 le 30 33 832 37 18 suñu succursale ba nek ci Touba manam suñu Palace ba nek ci Touba Touba 28 janook route nationale bi ak station Mac Keur Bamba Imo 77 446 23 40 wala 33 978 40 89. ok jërë ngi jëf ko télévision Touba TV ñu ci ba Euh, Serigne Lampo da nga ñëw fi nga yemoon léegi rek si ma xoon jóobe léegi am njàngam fu mu tàmbali ak naka la demee. Euh, sëriñ bi bi nga xamee ne àgg na ci ati war a tàmbali am njàng euh, dañu ko indi ci sëriñ bi muy Cheikh al sëriñ bi moo ko tàmbali am njàngam daal di ko sa ba siin miim ginnaaw bi mu ko saxee ba noppi nag daf ko dafa diggal way juróom ma Massamba ci mu yóbbu ko ci nijaayam muy Cheikh sàmba Ayib jóob mi nga xam ne moo way juróom bu jigéen ñoo bokk ndey ak baay boobu nijaayam mi ngi nekk ci dëkk bu ñuy wax ngaabu ci ginnaaw Tuuba ci soow bi foofu la euh, jànge alquran ci nijaayam bi muy jàng alquran itam suñu boroom da ko cee defal tawfiq mu teel ko mokal ndax eh, dañuy wax ne bo seetloo ci digënté bi jang alquran ba mokal ko mokalin wu wër wu and ak wu rafet danaka à peu près ci ay juroomi at lay toll kon loolu tawfiq la bi nga xamé ne mokal nako ko ci mokalin wo bu nopi tam yëmu ci yëmul ci loolu waye daf ci bolé bindu ko mbind mu rafet mu rafet te ginnaaw bi nga xamee nag kaamil bi àgg na nijaayam daal koy jël daal koy jël waaw Cheikh Massamba Ayib Diop muy nijaayam daal di koy e, jël mu kaamil bi daal di ànd ak moom daal di dem Jurbel ndax boobu Cheikh Massamba nga fa ndax bi mu demee jébbal kaamil bi Cheikh Massamba léegi waaye juróom daa jël bi ànd ak moom ànd ak nijaayam daal di dem ci Serigne muy Serigne Touba. ngir fas yéene ko jébbal kaamil bi ak wan na ko Mahmoudan mi moo bind kaamil bi buñ demee ba yëglu ba sëriñ bi ne leen bisimilah bañ dugg ma Massamba daal koy wan kaamil bi ne ko kaamil bi Mahmoudan mi moo ko moo ko bind bi mu ko joxee sëriñ bi ak sëriñ bi ni mu fonkee alxuraan xam ne kaamil boo ko mos a jox daanaka li ci ëpp da koy tijji xool jàng tuuti fon ko wormaal ko bi sëriñ bi tijjee nag dañuy wax ne daf koo tijji day mel ne na muy xoolee kaayil bi daal kaayil bi yéeme na ci moom lool ci xeetu rafet ak yooyu bi mu ko bi mu ko xoolee ba nopp mu ne ko Masamba mu ne ko waaw mu ne ko Mahmoudan mi moo bind kaayil euh, bii mu ne ko waaw donc foofu histoire ni wax ne xeetal xulaamu la jëfandikoo waaye moom la rek moom la Mahmoudan ndax moo jëf moo bind kaayil bi Cheikh Masamba ne ko waaw moo ko bind mu ne ko ni ngeen ko suturaal ndax lii teel na ci moom ci loolu laa bëggoon ak sax xam naa danga maa xaw a dogoon tuuti rek bi nga xam ne ibne kayn bi euh, loolu moom baaxu sëriñ bi la te mooy su fekkee dañ ne nangam mokkal alxuraan wala nangam jiite alxuraan nangam am na ci ab cër sàngam saa saa saa yoo mos a jàkkaarloo jàkkaarloog moom faw mu am natt ko mu doxale sa diggante ak yow bi sëriñ bi ibne kayn bi dañuy wax ne fi mu njëkk a yem ci kayn bi mooy suratul araf léegi bi bi mu yemee ci lool sëriñ bi daf koo digal ne ko taril euh, Cheikh Mahmoudan daaj tari ba àgg ci almuflixoon sëriñ bi ne ko dafa doy na sëriñ bi ubbiwaat tëj bi ubbiwaat ko yoonu ñaareel daal di dajewaat ak jël benn suurtu Yunus daal ne ko tari mu tari ba ci daaw fii fiha subhanaka allahumma mu ne ko doy na am na ci fu ma gis foo xam ne nee na tëjwaat na ko yoonu ñaareel yoonu ñetteel woo xam ne soo jaasiya la la la la gis mu gisee ne ko tari ko mu tari ko ba saar yu jeex ah, loolu day mel ne sëñ bi nattu na ko ci alxuraan te eh, kon moom mën nañoo jàpp ne eh, shahada quraan yam sëriñ bi moo ko jox loolu dañ ciy gisee ne kon moom ku ku mën alxuraan la ndax sëriñ Tuubaa koo xam ne seedeel na la sa mënuk alxuraan rek kooku ma laa sakka ci ne am ku mën alxuraan la ndax sëriñ Tuubaa mooy borom alxuraan loolu moom seet sàkkam ci waaw xam nga sëriñ bi bi mu xoolee Kayin ba jaar ci jaar-jaar yooyu ba noppi sëriñ bi ko wax waajuram Cheikh sàmm ne ko lii ku ko bind mu ne ki mu ne ko Mahmoudan mi mu ne neen ko suturaal daal di ñëw ci nijaayam wax ak moom ne ko yow de jaajëf daal koy sant ne ko yow de yaa gën diw sàngam ci ci ci ci jarbaaram dégg kon eh, eh, nijaayam am na càq ak sëriñ bi. ci mokul alxuraanu Cheikh mahamoud legui su ko defé itam mu ñew ci mom Cheikh mahamoud ci boppam dal du kay sant dal du koy xamni kon cheikh mahamoud mom ci gisawam ci ay fukki atam wala fukki at ak euh, juróom-ñeenti at japp fukki at fukki ben ci la téla am ciantu serigne bi ci la téla am itam ngërëma sëriñ bi bi nga xamee ne sëriñ bi jaar naa ak moom foofu ba noppi euh, na lu ko fa am na leen lu ko fa mooy sëriñ bi euh, wax na fa ne euh, te boobu ay maasam ci Mbàkke ak ci ñeneen ñëpp ñu toog sëriñ bi daal di wax ne man duma bàyyi kenn waaye foofu seetal na fa nekk bi mu nekk bàyyi sëriñ Mahmoudan te loolu daam lu waral la ko waral mooy jëf jëm jëf nga xam ne ba loolu jëf jooju da ko yóbbee ci sëriñ bi wax ci moom ne Mahmoudan mi de képp ku def jëf ji nga xam ne moom la jëf man maay sa bàyyi waaye képp koo xam ne defoo jëf ju mel kon da nga ne danga ne njuréel gi euh, danga ko wax rek waaye sequñu ko kon loolu sëñ Mahamadou am na ko ci sëñ sëñ Tuubaa naaw sëñ bi waxaat na ko ci leneen moo ko Mahamadou mu ne da nga cëru da cëru googu nag euh, wutee nañ ci lan lay cëru waaw wutee nañ ci waaye nag da nga seddu boobu waaye waaye wutee nañ ci waaye nag waxalaa ko li xam fi fekkee ñun ñi nga xam ne fekkee nañ jamono tey ma xam nañ ñu seddu na bu baax a baax ak nam doon doxee nam dund ak liggéey ba ñu bëgg ñu ñu ci inshallah balay waxta yu jax inshallah té ñi nga xamantene ci <clears throat> bayyi won na leen di ñu fekk ko fa té boba nak <clears throat> moy tambalé tok all bi all bi ngir ngir ñi mëna liggéey mu mu toj fa all bu yaatu bo xamné mom doyon nako doyon nako daana fa liggéey liggéey bu wëra wëra mu defoon ko it euh, xeeti ay daara yu bari euh, am daara joo xam ne dañ ko tuddee daaru karim ak jeneen daara joo xam ne dafa nekk ca kawam ñu tuddee ko bustaan waaye bu ci ne ci biir daara yooyu nag euh, da ko tege beneen système boo xam ne ñetti nit ñu ne wala ñeenti nit ñu ne lay doon dañuy am jawrin waaw nosin woow la ko tegoon ñetti nit ñu ne wala ñeent ñu ñu ne dañuy am jawrin nga xam ne jenn daara ji rek manam ay jeewrini ay ay daara yu bare bare li nek ci biram te ñenn ñu ne dafa am da na am jëwriñ ju leen ko waafe jo xamne si mom mo len di jité moy jëwriñ ju mag ji waye xam nga mbooloo machine woowu mbolo bo fekkee da nga yor luma ma nit exemple jël kenn nit jité len mu war len a jiite a saytu ba man na man na gël goose saytu ba mën naa gën dugal si waaye nag bu fekkente ni si ñaar fukki nit la moom jëwriñ ju ji ñaar fukki nit yi lay saytu ñaar fukki nit yooyu di saytu yenn ñett ñett yi wala ñenn ñeent yi day yomb looloo taxoon mu nose ko noonu ñu daa fa nag euh, liggéey loo xamante ne si lépp lépp day dellu ci euh, addiya ak lu muy dundee la njaboot képp loolu rek la la fa nekk woon euh, mu nekk fa diir boo xamante ne si gannaaw bi mu ko sancee ba li mo mo mo modou may jógee nekkoon khalifa sëriñ Massamba bu njëkk daanaka boobu euh, Touba euh, kilifa dañu wax ne daanaka sax daawu fi ñëw ne won na fi tank lool sax lool lool ne won na fi tank lool mu daan daanaka ku ko gis Touba mbel nga ko gisé wala wala wala Touba mu yittee ko fi andi ngeen dajé fi rek gannaaw bi nak bi bi fi sëriñ bi jógee sëñ mo sëñ Modou May mu jité njabot ak ma Masamba yan bi dal ci kawam la ay ay am nekam gi di di xaw di faral di nek tuba mu fi faral di nek wa tuba mbela mom dafa nekkoon dekk bo xamne dako fonkon lol lol ba nga xamne mom yemele yëmalewu ko dara ndax ndax da wax ne tuba Mbàkke de mom mom mom ku fi gis dañ ci dajé rek ndax dekk la bo xamne si mom ñun ñepp ko bok waye tuba mbela mom kuma fa gis xamna ni la tax sax nit da da ñew fii nii ci dëkk bi ci mujjam boo ne ko bu la laajee foo jógee nga ne ko mbeela mbeela du waxaat ak yow ndax xam ne ne mbeela moom bu doon mbeela yi képp moom euh, la tax mu dox moom ñëw gëm fa ñëw sanc fa moo moo moo yóbbu gox ba foofu mu dem waaye euh, ne ay dëkk yu comme mag yu bare bare nga fa woon yoo xam ne seen lépp léegi Touba Mbella lay jóge kon euh, nekkal gi nekkal yàlla nekkal gi nekkal sëriñ bi ci la ko yàlla faye ba mbiram euh, yëkkatiku ba tiim ñëpp tiim ñim dendal ñëpp am na ci sax sëriñ boo xam ne <laughs> daf ko daa tooñ naan ko ah yow di sëñ bi fi nga sanc dafa sori lool ci kilifa yu mag yi ñu xam ci dëkk bi la fi nga di dafa sori lool mu ne ko fu sori fu mu sori mu ne ko bërëb sàng mu ne ko bërëb sàng bërëb sàngam moo ko sori <laughs> waaye moom de soriwut <laughs> loolu ay xeeti tontin la ak fonk dëkk gi mu ak fonk gi mu ko fonkoon ak eh, yéen jim ci amoon ba taxoon nag loolu lépp moo taxoon mu mu dem ba eh, eh, wut fa bis boo xam ne mooy bis bi ñuy waajal incha allah war caa àgg la 5 février bi ñu wara ñëw bu neexee yàlla Euh, loolu ci ci njëlbeen ak gàmm la daa gàmm la doon ndax moom fa la daa gàmmoo euh, di ko def di ko woote ndax moom daf daa wax ne ndigalal sëriñ bi yi day waxtu wu ne dañoo war di toog di ko fàttaliku suñ ko mënut ayu bis gi ne suñ ko mënut weer wu ne suñ ko mënut at mu ne loolu moom philosophie boobu la amoon ci màggal philosophie boobu la amoon ci dajale aw nit maanaam euh, fàttaliku sëriñ bi fàttaliku ay ndigalam soññekuwaat gën a jaajuwaat gën a tegaat ci yoon critique waat suñu bopp def autocritique ci suñu bopp ba xam ñi ngi dox wala ñi ngi ci yoon wi wala jàdd nañ wala xeet yooyu moom philosophie boobu la ci amoon ba tax nag gàmm na ko ay ati at bi mu nekkee sëriñ Masamba te sëriñ Masamba ni ni ni ni mu meloon ci gàmm ak cër bi ko sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu joxoon moo ko daa taxawu formé woon ay kuréel yoo xamante ne si ñooy fanaane guddi gi sëriñ Masamba di leen saytu Euh, ndono loolu tax nag gàmm googee mu far ko soppi beneen bis di gàmm di di di dundal bisu sëñ Massamba bi gàmm gi di ko gàmmoo fii ci kër gi muy ëtt bi ñu toog euh, ñi fekkee dem ñu bari daa nañ wax ne Touba sëñ ma sëñ ma sëñ Mahamadan rek a fi daa gàmm daanaka gàmm boo ko fi bëggee def fanaanee gàmm gàmm gu fii rek ngay ñëw euh, looloo taxoon nag Touba la mu tuxal bisu gàmm googu noonu di ko def ak màggal moo moo jur màggalu Touba Mbélla gii at mu ne ñuy dajaloo mooy dajale njaboot gi njabootu ma Massamba gi njabootu boppam euh, taalibe yi ak dëkk yeeg wóllëre yi wóllëre lislaam yëpp ñuy euh, jariñante di fàttaleet ci diine di soññante di dimbalante euh, loolu nag def na ko ay ati at ba mujj gi <laughs> ni mu fi jógee njaboot gi tubaarikàlla macha allah taxaw ci bu baax a baax <laughs> waaw jërëjëf. yooyu wax yàlla li nga leer am na solo lool Touba Mérina nag euh, dëkk la boo xam ne nii dañuy dégg sax ay turam lu bëree bëri waaye li nga wax loolu li ma ciy firndeel mooy léeg-léeg da nga gis ñu ne daaju ma waxi bu Touba Mbella daaj waxoon ma ngi Touba Mbella lañu ko jàngee woon ba léegi dañ koy roy ci ñu ko ko dëkk yëpp dañ koy roy xam ne daaj boobu baax daaj gi Touba Mbella kon fonkoon ne moom xasida yi fu mu nekk rek suñ euh, koy daan fonk lool ak foofu ci ci wetam loolu ak sim sam bi comme ñu koy defee léegi nag ngir euh, bala ñu jeexal bi ñu ngi si waxtu yu ñu ngi ànd ak Touba Mbédél TV fii ci kër si Mouhamadou Diop Moussa Sam gi ren nag euh, daara si daara sëriñ si Mouhamadou Dandi waajal waxtaan bu am solo am solo boo xam ne fa ko fas yéene def si Touba Mbédél bu ñuy suuru màggal incha allah war a yem ak ajjuma la 4 fév la 4 février incha allah si amul Mbàkke mu daal di moxti ma fas yéene def waxtaan boobu ma ngi fa thème bi may nekk nag yoonu murit li ci yor suñu tubaab li si dugg te bokku ci li dugg ci yoonu murit te bokku ci daal li si bu woote li dugg ci biir te bokku ci loolu lañu fas yéene waxtaanee incha mooy doon thème bi bu ko defee nag suñu Mahmadan sër suñu Mahmadan bi Touba Mbella euh, la comment dina yi muy ñi nga xamante ne dañoo sëkkoon ci baaxoo di def chaque année euh, laata mag na Touba la ñu am bis buñ ko jiite la boo xam ne euh, euh, ci màggal gi lay bokk waaye nag mënu caa ñàkk ay ati ata ngi nii ñu koy def ren nag tubaarikàlla mu dellu siwaat di ñaan àgg ca ak jàmm te mu jàll ci jàmm ak salaam te duñ fa jëf rek sëriñ bi gërëm ko ñu dajeeg te te barkeel ko ren nag dañoo fas yéene waxtaane eh, loo xamante ne si lu actualité la loo xam ne toujours day am tajaddut ndax eh, nun eh, gannaaw diine Sëriñ Tuubaa rek lañu ñu am mën nañ ne sax Sëriñ Tuubaa la am ndax Sëriñ Tuubaa buñ ko amul woon sunu diine dana dana dana dana dana dana dana dana karaj lool waaw dana karaj lool dana taq suuf lool dana doy waar ba tax na nag Sëriñ Tuubaa moom li mu andi woon li nga xamante ne si moo moo ko jot la woon tubaab bi mu ne dafay amee mu ne ko dafay amee ñu sonal ko ci sonal teg ko ci xeetu coono bu ne mu nangu koo tegoo jaayante euh, gar ci bakkanam ngir loolu taxaw loolee nag nga xam ne mooy lislaam ju set wecc akuk taalibe gu set wecc ak dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gu wér céng euh, jamono yàlla da ko bindee àdduna eh, lu muy dox rek day dox ba ci yàgg eh, dara dugg ci ndax melaw jamono moo demee noonu eh, ndax murit gi fi mu ne bari na ci yu baree bari yoo xamante ne si day mel ne ñu ngi ko ci génnee te mbokk ci bari na ci yoo xam ne si ñu ngi ko ci dugal te it bokk ci loolu yi nag waxtaane ko dafa jaadu ndax nit ñi xamaat fu ñuy teg seen tànk ngir bañ a réer ba tax daayira bi ren ñu xalaat jël thème boobu noonu muy daawatu Cheikhil Xadimi wa daxilaatuha euh, traité ko jàngat ko càmbaraat ko ba man cee jariñu jariñe ci it loolu rek lañ ci jublu di bis boo xamante ne si tubaarkàlla ñi ngi koy yëgal ñëpp ñi ngi koy yëgal ñëpp ñi ngi koy yëgal bépp daayira ahfaat bu nekk fii Touba ak fo fo mën a ahfaatoo rek ñu ngi la koy yëgal ndax euh, euh, bis la boo xam ne si bisub lislaam la bisub yoon wi la te loolu ñun ñëpp ko bokk di bis boo xam ne daal bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax a baax di am ci ay taxawaay yu kawe kawe kawe yi nag di di ci sàkku teewaay ñëpp di di leen ci woo <laughs> tabaarkalla jërëjëf ñu ngi nga pour nga def say kàddu yu tàggatoo euh, waxtaan bi waxtu bi daa mel na. dañuy wax ne fu ñuy fàttalikoo gaa yi ñu baax ñi yërmaande dafay wàcc di am mbégte lool ci jotaay bi ak ñu ko seqalu ñu eh, di wax ne daal bis baa ngi noonu ci sunu kanam ñu ciy woo ñëpp képp kuy ab julli rek di wuyoo ashhadu an laa ilaaha illallah ñoo ngi la ci yoon lislaam la fi nekk rek kon ñu di yemale si baat boobu di gu neex yu am solo suñu alaaji Mbàkke ko ñaan yàlla yàlla ko fi loolu te may ko wér musuñ musuñ Mahmadan di sant bu baax suñu Mahmadan Mbàkke musuñ Fàllu moom itam ci waxtaan am solo bi sant baax di dëggam sa kàddu mujj yoo di amaat contentement bu baax ci bi nga xamanteni ne si jataayu yermande la jataayu yiw la bi yokkute la it ko euh, soññukuwaat la ndax euh, kiñ koy defal motax euh, di di santaat bu baax baax ci sekk ak yeen jotaay bi ni di santat it sen télévision youtube bi nga xam mo koy jël muy Touba TV di sant bokki taalibe yi di wax na seigne mohammedan mom royu kay la bo xamanteni si waxuma la murit waaye ku dul ab jullit sax war naa mën a roy ci moom ndax jikkoy imanité bi nekk ci moom jikkoy imanité bi nekk moom ndax affaire e, e, bachariya dafa dafa jégg cadre l'islam te moom da yàlla da ko ca taw ay jikko yu bëree bëri di nekkoon nit koo xamante ne si bari na ay wax yoo xamante ne si wax na ko muy wax yu am njëriñ yoo xam ne euh, tout le temps nit ki da ci mën a da ci mën a jàppandiku di ci dëgërloo ba di di dox euh, bokk na ci rek yooyu benn boo xamante ne si man daf ma marqué euh, trop mooy engagement bi mu waxoon ne man de xam naa ne sëñ Tuubaa moom du ma du ma du ma fi nekk ba wuutu ko yilif ak njabootam yëpp ndax euh, mbir yi tëddiwul noonu waaye daal li ma xam ba xam ko mooy sëñ Tuubaa moom kenn du ko yàpp di ko jaari ci man loolu nag engagement la engagement la boo xamante ni dafa am dafa dafa am ak ak ak ak ak la boo xam ne moom moom bañu ci dara ndax ndax loolu mooy ñàkk sa bopp ci say jikko ci sa melokaan ci sa doxin ci sa waxin ci ci sa jëflante ba kenn du xeeb sëñ Tuubaa ne kii kat kii de kii de lii mu def ñu ne ci sëñ Tuubaa la bokk ah, kon day sëñ Tuubaa acam loolu moom moom fa xalaatuma si ci du ko def loolu nag ci la nekkoon ci la yar ñim ak ci yar ñim àndaloon kër gi it loolu la xam ñi fi nekk ñëpp loolu loolu la ñuy dox kon daal kàddu la goo xamante ne si moom kàddu gu mat a bàyyi xel la kàddu la goo xamante ne si képp koy safoo sëñ Tuubaa wala képp kuy safoo lislaam ndax sëñ Tuubaa mooy lislaam kàddu googu war nga ko jël di ko teg sa kanam di ko xool tout le temps nga koy nafaraat di ci jëm a dox asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf suñu waxtaan jërëjëf suñu làmp jërëjëf suñu alaaj mbàkki si njàng mi kon mbokk yi waxtu wi fii lañ yem incha allah dina yàlla suñu borom mu defal ñu jëraay bi aw yiw dafa ñu si tawfeex yàggal bi itam xalifa bi nga xam ne moo fi nekk suñu waxtaan suñu cheikh yàggal bi itam sëñ Mamba Moussa Samba ak suñu taxaw mbaa gi nga xam ne moo moo jiit yoon mul yëpp ñu ko ñaanal suñu borom may ko fa nu gudd ànd wér yaram te naa leen naa yëpp suñu ci waa mu àggal ko kaw njortam ñu ngi sant bu baax ñu doon seetaan ñëpp di leen gërëm ñaan yàlla suñu borom jotaay bi bu mu neen yàlla suñu borom def jotaay yam gën a gërëm ci bàkk Seexul Xadim te defal ñu fa ñu aajo baax a baax ci bàkk mag ñu ne waxtaane ci bàkk bërëb bi ñu nekk kon jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa taalaa taala wa barakatuh dal jam ci keur Bamba Imo keur Bamba Imo moy sen agence immobilière bi nga xamni dafa spécialisé wu lol ci kuy jënd keur kep ku bëgg jënd keur ci Touba ak ci réew mi yépp ñolay lay location keur ñolay lay waye it nga am sa keur keur gu rafet défar ko ba mu yañ bëgg ñu gérer la ba mu bax luweel lako di la verser sa xaliss ñun ñoy keur Bamba Imo fi ci Touba keur Bamba Imo fi ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala bok terrain plan bâtiment construction de maisons, les plus jëm immobilier joko la Bamba Imo n'ak dañu agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage dëgg la lay garder de dara sécurité Nous dañ une dox entreprise pour te am service sous transfert d'argent assurance de véhicules, toute branche le siège mi ngi nekk marché Dalifort 77 339 88 55 wala 77 233 36 17 wala 30 33 832 37 18 suñu succursale Madame que ci Touba Touba Touba 28 Diano route nationale bi ak station Mac Kerbamba Imo 77 446 23 40 wala 33 978 40 89. fait ku amati jafé jafé location C'est mon directeur di nga ko gis léegi malik Ndiaye képp koo xam ne da ngaa soxla assurance sa jëmm ak sa alal gisal sama directeur maling jai, waaye it dafa am yu am solo bu leen ko fàtte bayaal yi yaatu na da ngeen amul ku leen terrassé tabaxal leen tabax bu wóor bâtiment boo xam ni mën nañ ko fee bàyyi ay ati ati at du fof du tippiku du daanu du yëngatu liggéey boo ko boo ko mokkalee tari ko dalay yomb man caamaas duma dugg ci ku amul fulla duma ànd ak ku amul xam-xam waaye eh, bëgguma nekk ak ku dul joxe nit bu tabee tab da koy yomb